le mm. projet PASTEF nak ñi ko euh, Ousmane di Nous euh, mu mu le ci contexte où nous bi un ay système là avec ses tentacules ñu bëgg aujourd'hui faire tout pour li nga xamante bi ce projet là à travers son leader bien sûr parce que nous avons ne mooy le porte-étendard nous avons ne mooy la tête donc tay nous fexé ba faagaagal ko ce projet là moom ngay anéantir.

mais li may njëkk a rek moy da ngay gis président Ousmane Sonko ni mu ñeewantalee le peuple sénégalais parce que discours bi tay mu def nga xamné c'est c'est c'est un discours ferme ferme d'une extrême gravité au vu du contexte mënoon na ko def euh biñuy waajal tabaski mais li mu yéne won moy nit ñi mëna tabaski ci jàmm ak salam sen xel mëna dal mom mu dékku bép mettit bo xamné mi ngi koy dékku actuellement mu dékku ko donc vous aussi vraiment magnifier en tout cas l'attitude du président Ousmane Sonko mais comme ni le mhm. c'est que c'est un projet qui est révolutionnaire je pense que Ousmane Gueye wax dit. projet le boo le système bi nga xam mo fi nek daf ko fi bëgg a ba paré jël le peuple sénégalais placé ko au centre la souveraineté bi nga xam constitution moko wax mu délo ko le peuple je rappelle que la souveraineté ultime appartient au peuple te foofu non la ñuy parce que dégg nañ muy wax renégociation des contrats nañu delloo richesse ci peuple yi am justice euh, euh, sociale etc. mais lolu muy wax yépp, mais constitution daf ko wax mm-hmm. kon moi, lay l'actuel président de la république dafa trahir son peuple c'est une haute trahison parce que constitution moo ressources naturelles c'est le peuple moom moo ko te lepp luñ ciy def dafa wara a ci yokku dundinu en tout cas améliorer dundunu peuple mhm. donc tay Pastef lolo tax mu judd projet bi yeb ça tourne autour des masses ça tourne autour du peuple ça tourne autour autour de la justice sociale ça tourne autour d'une valeur centrale moy bëgg sa rew jiital sa bëgg-bëggu rew tay C'est gisee président Ousmane Sonko limi daj physiquement mentalement psychologiquement tous les membres de Pastef tous tek tay bo boo de Pastef amana sa fi ngay liggéeyee boo moytul do am évolution euh, professionnelle gis nga ñi ngi ciy jàpp guddeeg bëccëg ñi ngi ciy blessé ñi nga xamné xeyna sa na sax delu delu Sénégal donc dafa ànd ak ay sacrifice yo xamné liñ ko yóbbee lenn la moy bëgg suñu bëgg suñu suñu suñu suñu réew léegi nag projet bobu nak ñi muy laal mo bari parce que depuis les indépendances dafa am ben système bo xamné c'est en tout cas dafay am ben perpétuelle reproduction en tout cas des classes je pense que Ousmane donc ce qui tay, le Pastef a social nga xam képp mérite vraiment toutes les possibilités de réussir donc vraiment de, manière équitable mhm. donc loolu tay le Pastef di woté ba tax tay nga gis système bi nga ramification c'est-à-dire ku nekk di des di nga gis journaliste les eh, commerçants gis ay tout ça c'est le système mm-hmm. mais dama damay rafetlu aussi pédagogie que nga xam président Ousmane Sonko indi parce que damay fàttali né, le rôle ou bien la mission première d'un parti politique c'est de conscientiser les masses tey Pastef loolu le réussir Parce dem na ba conscientiser une masse critique boo xam ne problème yi bu amee bu juddoo peuple bi parce que li am ni yëpp du du Pastef ne peuple bi événement Marseillais, yi ba ñu son le peuple bi dañu génn spontanément pourquoi le 1er juin et le 2 juin pourquoi parce que fekk na en amont président Ousmane Sonko day top sorti. def ay sorties di les enjeux mm-hmm. di len wax en tout cas les forfaitures yi nga xamné Macky Sall daf koy def effectivement d'une manière pédagogique daf faut a defal lu tubab bi wax diagnostic mm-hmm. Macky Sall mi def forfaiture Macky Sall mi utiliser les institutions Macky Sall la justice c'est son bras armé judiciaire pour dire a daanal wala le euh, wala en tout cas euh, un candidat sérieux pour xam ne sondage yëpp dafay ne gagné Macky Sall mu en tout cas il instrumentalisé instrumentaliser les forces de l'ordre l'armée etc. pour mener dans dal ci peuple bi loolu la je expliqué Vous mu vous ko vous ba en tout cas dans le moyen terme ou dans le court terme nous enjeu yi ñu am nga élection yi jub nga xam suba président Macky Sall dina def sortie te président Ousmane Sonko nim ko waxe non la amé ñaari option ñu am mooy soo mu ne candidat la te man sa lima japp moy waji waa mën na ñew ne baña baña wax ne mom candidat la mën na ñew ne man damay dem laaji conseil constitutionnel parce que ñemewul ba léegi ñemewul tudd ne damay damay damay poser sama troisième candidat mais mën na ñew suba def déclaration ne ah man de dina dem euh, laajte consulter conseil constitutionnel ba xam li ñu may wax bu ko defee pour mën a en tout cas gagné waat du temps donc loolu c' est une option sérieuse boo xam ne war nañ ko jël en compte mm-hmm. mais bi mu leen ko waxee ba pare dafa fàttali peuple bi ne leen yéen yéen a moom souveraineté tey bu ñuy wax Sénégal yéen la bu ñuy wax institution yéen la mm-hmm. Macky Sall yéen yéen a ko fal yéen yéen a leen di fay kon nag fii ñu toll ñu leen di mettital guddeeg bëccëg di leen sonal di rey seen i doom di tëj seen i doom jot na nag ngeen jël les choses en main c'est-à-dire dañu toll fo xamné peuple bi waratuñu xaar né Sonko na génn wax luy mo d'ordre wala lami ñaan na génn wax luy mo d'ordre c'est-à-dire expliquer nañ leen suñu rôle def nañ ko ba fi Sonko def na rôle ba fi lu nekk daj na ko mhm. kon nag c'est au peuple de prendre en main mhm. très bien parce que dañ ngir les générations à mhm. venir léegi